mbokk ñi teewlu si Galsen Celebrity dal leen ak jàmm ginnaaw li gën a fës si xibaaru daar daar dañ koy nag doore ndiki tey jii si aljuma ji ak ginnaaw préfet bu Dakar bi nga xam rek dafa rek daal di rek lankoon ne du jox ab autorisation bile manifestation bi nga xamante ni ñi faree si biir coalition Yewwi Askan Wi ak ginnaaw nag ba ñu déposé ab lettre de déclaration wala sax ab benn lettre boo xamante rek dañ ko daal di déposé rek ngir rek mun rek daal di yëgal am ndiki tey jii ah, si aljuma ji ajom ah, juróom-benn fan si weeru janvier si atum 2023 ah, bu 15 heures jotee ba 19 heures fële sa place de nation waaye nag ginnaaw nag boobu la déclaration sax gis yi di communiqué bi nga xam rek préfet daal na koy génne ndiki rek démb si alxames bi préfet Dakar sax dal nay wax sax ne travaux yi nga xamante ni ñeel wàllum travaux BRT am foofee nga xam rek moom moo di sa place de la nation tax rek waral ñu rek daal di lank ne duñu jox bi autorisation ndax fii 48 heures am na ay dañ ko rek war a amal foofu ñeel si wàllum BRT bi ba tax nag si boobu la jamono sax ñi di waa coalition euh, yeewi askan bi moom am na benn communiqué boo xamante ne euh, jot nañ ko génnee ndikki tey ji euh, si aljuma ji ginnaaw nag ba ñu daal di waxtaanee seen bi ba noppi lañ si xamal sax mooy ginnaaw nag ay waxtu yoo xamante ni ñoom daal nañ koy waxtaan ba noppi kii di préfet bu Dakar nag dafa rek tàmmu saay wu ñu jàppee nag ab date manifestation dañuy rek daal di leen xoqatal waaye nag dañu leen daal di salfaañee li nga xamante rek moom moo di seen àq ak seen

woon ay moor waaye nag indi woon ay blessures yoo xamante ni ak kenn waralu ko ku dul préfet bu Dakar bi nga xam fekk dafa daal di lànkoon ne du joxe boobule autorisation manifestation sa place de la nation ay kàddu coalition Yewwi Askan Wi ba tey si biir li nga xam fekk moom mooy si bataaxal bi ñu ngay sax yokk di si xamle ne le janvier bi ñu dëgmal nekk ajjuma bi ñu dëgmal ñoom daal dinañ fas yéene déposé waat ndiki ji ab beneen beneen manifestation nga moom moo di yoren gi ñaaw gi nga xamante ni état bu Sénégal mu ko yoree Sénégal waaye nag si jamono joo xamante ne rek rapport bu Cour des comptes dafa fësal ab njuuj njaaj ginnaaw nag ay milliards yu ñu détourné si bile réew beneen bi nag bokk na nag si violation yi nga xamante ni ñu ngi koy daal di teg si ndoddu askan wi rawatina nag ay arrestation yu amul àpp loolu yëpp waral ñoom tamit ñu fas yéene rek déposé waat beneen lettre d'information ngir rek demaat place de la nation ñu ngi leen di ñaanal ngeen yoon ak jàmm ak leneen lu gën a fës si biir réew mi jaa ngeen jëf